waaw mu mel ni suñu code électoral euh, dafa am ci chapitre bu njëkk bi euh, dafa wax conditions yi nga xam ni euh, ci ngay mën a bindoo ci liste électorale yi alors ci conditions yooyu am na ci effectivement loo xam ne dafa jëm ci at yi nga war a am ak fi nga war a dëkk pour pour mën fa bindoo fi ngay liggéeyee ak aussi commission yi ni muy tëddee. Mm-hmm. waaye dafa am aussi beddi ñoo xam ni code bi mayu leen euh, ñu bindu ginnaaw mu jëm ci ñi amul limu at yi euh, def ci nag am particulièrement ñoo xam ni euh, dañ ko tënk ci code bi ci article yooyu daanaka yi ci ëpp muy article L vingt neuf ak L trente am aussi article L vingt huit waaye dinañ taxaw ci L vingt ak L trente. Mhm. alors article yooyu bi ci jiitu dafa wax ñi nga xam ni mënuñu bindu ci liste électorale yi mu commencé ñi nga xam ni dañ leen maanaam daan condamné leen ci mbirum crime euh, ñooñu euh, faawu rek euh, ba faawu ñoom dootuñu mën a bindootu ci liste électorale yi dootuñu mën a nekk électeur mu toftal ci ñoo xam ni dañ leen a condamné ci yenn délits yi Euh, maanaam ñi nga xam ne dañu détourné xaalis euh, ñi nga xam ne dañu def euh, dañu leen daan ci corruption wala ñu def faux et usage de faux waaye nag tant que ñu lim délit yi ba mu mat dañ et en général bépp délit boo xam ni daan bi ci bi la ciy xaar mën na egg wala mu ëpp juróomi at kon mu mel ni kaaw ñoom Karim wàdd ak Khalifa foofu la ñu dugg ndaxte ñoom donte. délit d'enrichissement illicite bi ñu doon toppee Karim Wade nekkul ci lim boobu waaye comme daan bi ñu ko daan déjà ëpp na juróomi at kon dafay dugg foofu maanaam dootul mën a bindu ba faaw Khalifa aussi la même chose après mu ñëwaat euh, yeggale euh, nga xam ni ñoo xam ne tax maanaam bu ñu la amaanee tax ñaa ñeent fukki junni nga war koo fay euh, yow da ngay perdre sa droit wala tax ñu condamné la lu ëpp 3 mois wala mu toll ci 3 mois alors kon. mu doon loo xam ne lu sévère la parce que droit de vote dafa nekk droit fondamental boo xam ni euh, waxuma tax suñu charte réew euh, instrument juridique ci àdduna comme ay déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko gës yàgg fësal euh, déclaration bu njëkk ba tax des droit de l'homme et du et du et des peuples da ko da ko wax te loolu yàgg na maanaam ëpp na ay ñaari téeméeri téeméeri war war na ëpp ñetti téeméeri at at mu am maintenant article bi ci topp L30. Hmm. moom dani daan yi bu ñu la ko daanee euh, wala ñu daan la ci délit yi yow di nga toog juróomi at doo mën a bindu ci liste électorale bi te ba pare am na beneen disposition boo xam ne souvent nit ñi duñ ko gis moo ngi ci euh, condition euh, d'éligibilité élection législative yi dañu yow su fekkee dañ la daan maanaam provisoirement donc euh, nga xam ni mënatoo bindu juróomi at dafa wax ni pour nga mën a nekk candidat député di nga toog doublement maanaam diir boobu di nga toog kon fukki at pour mën a nekk candidat député alors léegi nag article L28 moom dafa indi exception rawatina nag ci maanaam troisièmement bu L28 moom dani ñi nga xam ni nag dañ leen a daan Euh, ba nga xam ni mënatuñu bind ci liste électorale yi. Mhm. Euh, am na ñaari yoon yoo xam ni mën nañ leen a euh, permettre ñoom ñu retrouver maanaam ñu ñu restaurer seen droit de vote mooy mooy mooy bi ci njëkk mooy ñi nga xam ni maintenant dañu maanaam bénéficier wu ci loi d'amnistie ñu voté loi d'amnistie maanaam pour effacer li ñu def loolu moo taxoon jamono yële président de la République tax moom si waxam moo njëkkoon évoqué voie boobu. ci bi muy njëkk a def discours am ci ci Korité gi beneen bi mooy mooy réhabilitation. Mm-hmm. réhabilitation nag mooy euh, mën nañ ci lim li Karim Wade doon laaj ñu réviser procès bi. Mm-hmm. ñu ne ah yow kat li ñu la doon jiiñ ba condamné na la yow defoo ko alors ñaari yoon yooyu moo fi nekkoon alors léegi nag da nga lim aussi article L57. 57 bien sûr. Euh, article yu njëkk yi. depuis le code électoral de 92 maanaam am na ci ci ci ci Sénégal ñu koy appliquer lu ëpp fanweeri at waaye euh, li jot laaj kañ mooy pourquoi article bi nekkoon fi te daaw ñu ko utiliser lu dul euh, ci élection 2019 yi pour mën a tere xali Khalifa Sall ak euh, Karim Wade bokk ci ci élection yi léegi nag li nga xam ni moo bees mooy article 57 dafa am dañu ko modifier yu am lu baat bu ñu ci yokk article 57 mooy wax ñi am sañ-sañu nekk candidat ginnaaw bi constitution bi waxee. Mm-hmm. Euh, dañu woon bépp citoyen boo xam ni euh, jur nga détee droit civil et politique euh, donc am at at yi mën nga nekk candidat waaye nag dañ ci modifie woon daal ci yokk bépp citoyen électeur kon ñu gën a verrouiller pour que donc maanaam ñëpp ñi nga xam ni en fait donc empêché nañu leen ñu nekk ci liste électorale yi kon faaw moom dootuñu mën a nekk candidat ba ñu demaat ci disposition yi nga xam ne moom mooy wax euh, dossier bi candidature bi ni muy mel ñu laaj la aussi numéro d' inscription. d' loolu moo tax justement ñoom euh, ñoom euh, justement xalifa mënuñu woon a mënuñu woon bokk tey nag ci waxtaan bi ponk yooyu. Mm-hmm. effectivement ñëwaatoon nañ ci. maintenant may rappeler c' est extrêmement important. ce n' pas parce que Sénégal dañu am problème mu maanaam bokk yenn candidats yi. moo moo tax moo tax ñu war a réviser dispositions yi. Mhm. Euh, mi 2010 2011 dafa am audit du fichier électoral bu ñu ci bu ñu ci defoon ñu teg commité de veille et de suivi boo xam ni par décret présidentiel lañ ko tegoon man sama bopp euh, bokkoon naa ci ñi nga xam ni ci ñetti commission yi benn commission bi maa ko présider pendant deux ans euh, léegi auditeurs yi dañu defoon recommandation c'était la recommandation R 1.9. dañ ñu woon il faut que mu am adéquation entre le délit et l'exclusion sur les listes électorales maanaam il faut que yow daan bi ñu lay daan ba dootoo mën a bindu ci liste électorale yi mu méngoo mhm. justement ak euh, justement yow daan bi yow li nga def donc c'était une manière de dire que nit ki mënoo ko priver de manière définitive que mu mën a bindu et loolu ñoom dañu sukkandiku woon sur les instruments juridiques au plan international